cinquante milliards man jàpp naa ne loolu war naa am contrôle boo xam ne saa su ne mooy contrôle chantier bi di xam chantier bi fi muy toll ak chantier bi ma ngi dox wala doxul bu fekkente ne nee nañ dañoo ne sept cent cinquante milliards ñu def chantier bi kon yaakaar naa kon war nañ koo teg ci loxo yu wër xam ne chantier bi kii moo ko diw moo ko yor diw mooy contrôle am xam nañ temps mooy dugg temps mooy génn xam nañ chantier bi ma ngi dox wala doxut waaye nit boo fekkee ne da ne jël naa xaalis jox ko diw mu toog amut contrôle amut xool man jàpp naa ne kon la ngay liggéey mën naa ne bu sotteet nanga ko bëgg digg dëgg doo ko amee ndaxte liggéey boo gis mu tege ci yoon dafa am nu ñu koy doxee ñu koy doxee mooy kat lox teg nañ ko ci loxo diw loxo diw mu ñu ko teg contrôle sàngam moo koy contrôle di xam marché fu muy toll ak fu muy téye man bu doon man sama xaalis man fu ma koy dugal dinaa ko xam ndax maa ko liggéey waaye xaalis boo liggéey nag bu la ko joxee nag moom noonu la neex koo yaataayumbe bu dee nag ci dëkk bu sell bi di Touba sëriñ bi moom daal di xamle ne Touba ca kanam dañuy daal di rafetlu bu baax jëf ji nga xam si ne moom lañ amal te mu jëm nag ci wàllum kanam taxawee nañ ñu taxawaay boo xam ne bii dal na suñu xel te rafet na ci suñu ba dee nga am te wóor na ci suñu nopp ndax fu ñu toll ak nuñ nekkee ñi ñu koy expliquer di ñu ko won ñu maase rek wax ñëpp nañ taxaw jàppale Touba ci kanam mu def réalisation yu wér ndax wàllu mbënd mi niñ ci taxawee rafet na leer na jub na waaye nag wàllum waxi gouvernement moom daanaka man ay waxam jotuma ko wax ndax nit moom boo demee ba boo waxee ba daane sa doom ji ci biir kër gi mën a taxaw ne sa baay mi waxul dëgg kooku bokk na ci matat yi gën a mat sëriñ bi moom daal di rafetlu 750 milliards yooyu waaye di ñaax tamit ñi nga xam se ne ñoo di borom doole yi ñu ñu daal di bàyyi xel nag ci ñi nga xam se ne moom la daal di tabaxee ndax bu fekkee ne place ndox la dafay daal di gàllankoor ñi nga xam seen ne ñoo di néew ji doole yi. dañ koy rafetlu ndax mbënd mi soo gisee mu bari maam tali yi ñuy defar saa ñu def canalisation canalisation moo war a jiitu tali loolu moo waral mbënn mi di dem ci ñu néew doole aussi tamit maam Sénégal dafa dem ba mujj dafa développé développé boo xamante ni ñu ñi dañoo defar ay étage bu njëkk ba suuf daraan am lam daan taw suuf si daka daan naan léegi nag terrasse yi moo waral ñu néew doole di gën a néew doole da ngay gis koo xam ne day def étage boo xamante ni euh, def fondation euh, def euh, suuf soo xamante ni da def ci buntu këram léegi ñu néew doole nag ndox moom day wal moo waral inondation bi inondation bi loolu moo ko indi waaw waaye nag bu fekkee tali bañ koo defar ñu def canalisation doog a jël tali teg kon mbënd mi dana wàññeeku. ak lu mën a xew ñu ñaax nguurug Sénégal mu bàyyi xel nag ci jafe-jafe bi nga xam se askan bi ñoo ngi jànkonteel ak moom. lii moom du man na du mën a guleet moom saa su ne ma ngi fi am ndaxte man de su ma juumut sax biñ ko fi bi fi mujjee am à Touba sax inondation amoon na fi ba sëñ Sidi Muxtaar génnoon fi milliard ko ci taabal ji mais teewul nag am na ci bari xay na ma ngi deñ waaye nag dañ dañ leen gën a ñaax pour ëllëg lu ñuy defati daal nañ ko te ci loo xam ne daal lu wér parce que nit ku ne bëgg na bu nu la nee bu na la dalalee daal nga daati tari baax na tari daal wax dëgg yàlla lu am solo la te am lu baax la waaye jox la xaalis jàmb daal nga di ko pasar pasaree man de Diop sama alal bu ma ko wàccee fii kenn dinaa ko contrôle teg ko ci loxo yi wér 10 milliards sama alal nii laa bëgg nga doxee ko ak nii ak nii loolu bu ma ko gisul nag wasalaam.